اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق القاتم لما سبقنا سر ذاك بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أه، أرحب بإخوتي الكرام القادمين إلينا من كل مكان فرحا معنا بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسميته وفرحا بهذا الشهر المبارك الذي من الله فيه علينا بمولود سيد الوجود وعلم الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ذلك فرحا في قلوبنا وامتنانا منا لله تبارك وتعالى الذي من علينا هذه المنة العظيمة منة القرآن الكريم ملة هذا الدين القويم ملة الشريعة البيضاء ملة الحق ملة النور ملة ملة عون للإنسان المسلم في تسفي تيسير طريقه إلى الله تبارك وتعالى عبادة وسلوكا وصلاة وسجودا وصياما كل هذا وصولا إلى رضا الله تبارك وتعالى ووصولا إلى رحمته وفضله وكرمه وإذا جئتم فإن مدينة تستقبلكم بكل ما تملكه تستقبلكم بقلبها تستقبلكم بمنازلها تستقبلكم بمسجدها تستقبلكم بأفراد هذه المدينة كلهم جميعا يقولون لكم مرحبا بكم في منازلكم مرحبا بكم في قلوبكم مرحبا بكم في بيوتكم مرحبا بكم في إخوة يحبونكم كما تحبونهم ومرحبا بكم في قوم جمعهم الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة في هذه البقعة التي طالما اجتمع فيها رجال من كل مكان ومن كل فوج عميق آه، آه، حضورا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكراه الكريم ونحن إذ نفعل ذلك لا نفعله آه، آه، شركا ولا نفعله خروجا عن الشريعة ولكن نفعله محبة في رسول الله واحتفالا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم ومجيئكم إلى مدينة حقا يعطينا أملا كبيرا في أن للإسلام أيضا قوة ما زالت باقية قادرة على جذب أولادها من كل على جذب أولاده من كل مكان ليجتمعوا على شيء واحد هو آه، بيان ما في قلوبهم من محبة رسول الله وبيانا ما في قلوبهم من الإيمان بهذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانا على أن الأخوة الإسلامية تحتاج دائما إلى التناصر وإلى التآزر وإلى التقارب وإلى الوحدة حتى تكون لنا للإسلام قوة قوية قادرة على صد كل معتد أثيم وهذه وهذه الأيام كلنا نعرف أن هجمة شنيعة على الإسلام من كل مكان من أعدائها غير من أعدائها المنتسبين لغير لأديان غير دين الإسلام وهم دائما يريدون هدم الإسلام بكل ما يملكون من قوة بكل ما يملكون من ذكاء بكل ما يملكون من علم وقوة تكنولوجية كل هذا سخروها لأجل دفع لأجل رفع الإسلام عن قلوب المؤمنين ولأجل تشكيك المؤمنين في دينهم حتى يكونوا ضعفاء دائما وحتى يكونوا دائما أبدا تحت سيطرتهم وتحت رحمتهم فإذا شاءوا بنا أن أن أن أن أن يشعلوا بيننا حروبا نتقاتل يفعلون ذلك وإذا شاءهم أن يأتوا وينهبوا أموالنا ويذهبوا لبناء أنفسهم نفعل ذلك وإذا شاءهم يجعلونا نقتتل بعضنا بعضا يقتل أخ يقتل أخ أخاه ويقتل آه، صديق صديقه ويقتل زوج زوجه ويقتل زوج بنته كل هذه آه، هذه المآسي تحصل على ساحة الإسلام آه، على ساحة الإسلام ليضحك علينا أعداؤنا ونحن لا نفيق أبدا في هذه المصائب التي لنا قوة دفعها بالوحدة فيما بيننا بالوحدة في في إقامة شريعتنا بالتمسك بالقرآن بتمسك بكتاب الله بالأخلاق العالية التي ورثناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أب عن جد آه، إلى أهل جرى فإذا نحن تمسكنا بهذا الماضي العظيم العريق التي ماض نور الدنيا ونشر العلم في الدنيا ونشر الأخلاق الحميدة في الدنيا كل هذه ماض لنا نملكه ونستطيع أن نعود إليها يوم نشاء أن نعيد إلى أنفسنا عزتنا وكرامتنا وأنه أن الإسلام وأن الإسلام يغلب دائما ولا يغلب إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون ومشاكل العالم الإسلامي كثيرة مشاكل في مالي ومشاكل في كل في نيجيريا ومشاكل في السودان المسلمون بعضهم بعضا يقتلون بعضهم بعضا يقتل أب أبا ابنه ويقتل ابن أباه ويقتل زوج آه، ويقتلون ويقتلون بناتهم ويقتلون أزواج بناتهم وزوجات أبنائهم كل هذا من يخسر في ذلك لا نخسر إلا نحن فيجب أن نعيد نظر في أنفسنا وفي تاريخنا وفيما يجب أن نفعله في هذا العالم من, من, من, من الحضارة العظيمة حضارة الإنسانية الكريمة التي ساد قرونا طويلة على هذه الدنيا وعلمت الدنيا العلوم كلها ولكن بعد غلبة الاستعمار علينا لهواننا وبعد أن سيطروا على بلادنا وأموالنا دائما يريدوننا أن نبقى هكذا حتى يكون دائما لهم كما يحبون وكما يريدون يجب أن ننتهي من ذلك يجب أن تكون هذه الاجتماعات الكبيرة لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم إلى أخلاق رسول الله لنتعلم إلى أخلاق رسول الله كيف يكون الإيمان لنتعلم من أخلاق رسول الله كيف يكون الجهاد في سبيل الله لنتعلم من رسول الله كيف يكون العلم وكيف يوصل إليه لنعلم من أخلاق رسول الله كيف تكون الأخوة الإسلامية لنعلم لنتعلم من رسول الله كيف نبني أنفسنا على أساس متين من القوة الإلهية الربانية كل هذا ممكن أن نعود إليه ونتحصل له إذا عزمنا يوما في يوم من الأيام أن نكون كذلك لابد أن نكون أن لابد أن نكون لأن هذا ضمان من الله تبارك وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ويدافع الله تبارك وتعالى عن هذه الأرض بالفساد بالمؤمنين الذين آمنوا بالإسلام صدق ذلك من صدق وكفر من كفر ولكن لا يغير من الحق شيئا أن الكتاب الله تعالى القرآن الكريم هو ضمان بقاء الخير وبقاء الإنسانية وبقاء طلب المعالي وبقاء الوحدة كل هذا في كتابنا الكريم الذي أنزل من الله تبارك وتعالى ونهنئكم ونهنئ أنفسنا بهذا اللقاء الإسلامي الإنساني العظيم الذي يتعارف بعضنا إلى بعض ونزداد حبا بعضنا لبعض ونتقارب إلى بعضنا بعضا حتى نعرف ما هي حقيقة مشاكلنا التي تدفعنا دائما إلى أن نكون في الصف الأخير نقتل بعضنا بعضا ونشتم بعضنا بعضا كل هذا ليس إلا من غفلتنا وليس إلا من أننا دائما كما قال ابن خلدون الغالب المغلوب معجب دائما بالغالب و آه، ويجب أن ينتهي هذا الـ هذا الـ هذا الإعجاب لمن غلبنا وشتتنا وضعفنا وشتت شملنا وقوتنا نرجو من الله في يوم من الأيام أن نجتمع علماء المسلمين وكبارهم ومفكريهم أن نجتمع في مكان ما هنا في مدينة أو في السودان أو في مصر أو في أي مكان إسلامي ندرس أحوالنا بجد واجتهاد حقيقة سوف نصل إلى طريق يوصلنا إلى الحق maa ngi leen di ndokkeel ci bésu tedd yi nga xam ne dund nañ ko ku nekk ci ñun yëg na ne bés yi ñu dund bés yu bési am gëm-gëm ci yàlla la bési óolu yàlla la <clears throat> bésu feeñal sa aju sa ajuwaay ci yàlla ni mel gàmmu ñëw na nit ñëpp fekk gàmmu gi weesuwut seen programme yëpp mooy gàmmu ga gàmmu ga gàmmu ga loolu yëpp ñu ngi koy def pour lan mooy bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla def itam moom itam mu bëgguñu ñu yàlla ñu yàlla boole ci njabootu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci àddina ak ci àlaxira yàlla nañu yàlla dolli dëgër yàlla nañu yàlla dolli xam yàlla nañu yàlla dolli am am yàlla nañu yàlla dolli yeewu xam bu baax a baax lépp loo xam ne àddina laaj la ko pour tabax sa bopp pour tabax sa réew ci xam-xam ci am am ci sellal ci bëggante loolu lépp yàlla na ko yàlla may Sénégal yal na ko yàlla may sénégalais yi yal na ko yàlla may mbooleem réew yi nga xam ne daje nañ fi te ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soxla nga loolu soxla nga moos sa réew am jàmm soxla nga moos sa réew nekk réew moo xam ne réew mu kawe la te loolu yëpp ñii ñi ñu jiitu ci politique yi ñu ngi ciy jéem waaye du tere ñun population yi itam war ñoo jéem ànd ak suñ gouvernement dimbale ko jàppale ko ba loolu mu bëggal si réewam ñu ñu am ko ci jàmm ñu am ko ci bëggante ñu am ko ci joxante yiw ñu am ko ci weccoante yiw su ko defee loolu yëpp dinañu mën a dimbale incha allah tabaraka wa taala balaa at yu néew ñu gis yoon wi nga xam ne ci lañ war a jaar jëm ca kanam te dootuñ dellu gannaaw mukk te loolu mun na am loolu mun na am su fekkee bokk nañ suñu réew bokk nañ ci réew yi gën a jeune ci àddina bi suñu réew yi ci la bokk ay xale yu mag di jëm kanam te lépp loo xam ne yàlla dina ko maye ci xale yi la koy jaarale bon nag xale bu nekk war na préparer boppam pour ne yàlla mu ngi may dénk loo xam ne accès gu ci waaye bala ma agsi na préparation bopp boobu accès ma mën koo téye ak responsabilité ma mën koo téye ak yëg ma mën koo téye ay ak ak xam yéen xale yi di màgg si lii xew Sénégal ëllëg yëpp ci seen loxo rek lay jaar yéenay nekk président yi yéenay nekk ministre yi yéenay nekk gouverneur yi yéenay nekk politiciens yi yéenay nekk policiers yi yépp yéen la ko yé mu ngi leen di xaar ngeen ñëw bon nag balaa loolu agsi war ngeen préparer seen bopp ci ci ci ci dogu ci dogu war ngeen a préparer seen bopp ci jikko war ngeen a préparer seen bopp ci gëm gëm gëm war ngeen a préparer seen bopp ci diine bi nga xam ne gëm ngeen ko ngeen la nga am ci bu baax ndax nit mënta tabax civilisation bu mag bu yëm kaw te tabaxu ko ci kaw gëm yàlla tabaxu ko ci kaw diine su fekkoon ne loolu am ni ko doon ba union soviétique am na fi waaye bi mu tabaxee boppam ne dafay tabax boppam ci gannaaw yàlla yàlla itam seetaan ko rek mu dem ba mabal boppam union soviétique kenn déggatu ko léegi ci àddina bi léegi jeex na parce que dafa tabaxoon boppam ci loo xam ne du dëgg tabax tabax ne da ngay tabax ci àddina bi moomoo ko àddina bi da nga ko fee fekk euh, ki ko fi ki la ki ko ko may ki la ko fi defal nee na nii laa bëgg nga nekkee fi nga ne ko toppal fale man gëwuma la sax nekkoo fi danaa tabax te sa yoon nekku ci voilà moo tax doo tabax dara Union soviétique jeex na te yeneen force yi mel ni moom tabaxu woon ne dañuy génne yàlla ci seen tabax ñoom ñëpp seen tabax yi daanu na l'islam ak li ñàkk ñàkk doole ci jamono yi ñu toll te moom rek la àddina bi yëpp teg bët mo meuna a tabax tabax boo xam ne dafay nekk njëriñ ci adom adama fi ci àddina bi da fay nek njëriñ pour dom adama fële ci alakhirah ndax lépp lo xamne nit soxnako ko politicien soxla na ko philosophe soxla na ko penseur soxla na su amul jàmm mënu ko am te jàmm nak ñun ñoko meuna may suñu bop jàmm ñoko meuna mën a utal suñu bopp jàmm moy kenn ku nek rek yëg ne Sénégal gi responsable la boo xam ne yàlla nga ko takk ci sama baat bon nag war naa li ma yàlla takkal war naa ko sàmm ba nga xam ne fa mu bëgg Sénégal àgg dina fa àgg dimbalante ak suñuy autorité parce que dimbale dimbalante ak sa autorité loolu loolu mooy mooy mooy nit ku civilisé parce que sa autorité nga dangay taxaw ni la woon ko gannaaw loolu moom di xëccoo moom loolu da ngay tardeel sa bopp rek waxuma ne bu bu opposition ñàkk waxuma loolu opposition na fi nekk parce que ci ñi jàngale ci la bokk itam naka la ñuy àndee ci dëgg wayé naka la ñuy tàggoo itam ci kaw dëgg fekk lu bax rek lañ bëgg opposition Sénégal la bëgg ki nekk ci pouvoir itam Sénégal la bëgg ñun population bi itam Sénégal lañ bëgg bon nak war nañu jiital bëgg Sénégal ci kaw mbooleem lo xamné ne daf ñuy baré pour ñu ag ci liñ bëgg a liggéeyal Sénégal ñu liggéeyal ko ko yàlla na ñu yalla dimbalé ci senegaal yàlla nañu yàlla teel hmm? Hmm? ah euh, góorgóorlu bu baax ci dimbalante ci loo xam ne dafay dolli nit ñi loo xam ne dafay yëkkati nit ñi moo tax maa ngi bëgg ci taalibe bàyyi lu nekk ak seen biir boroom xam-xam bu nekk ak seen biir boroom xam-xamu xaa ñi xam xaalis ñi ngi fi ñi xam àddina bi ñi ngi fi ñi xam politique ñi ngi fi ñi xam marché bi ñi ngi fi ñi xam dërëm bii lu muy tekki ak lu muy jëriñ ak fu mu jëm ñi ngi fi ñoo ñëpp ay xam-xam yoo xam ne maa ngi yaakaar ne benn bés danañ toog ñun ñëpp daje pour waxtaan naka la ñuy tabaxee suñ bopp tabax boo xam ne suñ xaalis ñoo koy amal suñ bopp te lu lu mën nekk la lu mën a am la ñu ngi ñaan yéen borom xam-xam yooyu ma tudd yëpp incha allah ñoo am ay daje yoo xam ne dañuy seet naka la ñuy mën a tabax naka la mën a tabaxee suñu bopp ci ci ci côté finance. parce que boo amul xaalis rek borom xaalis yi jënd la buñ la jënd buñ la jëndee rek def loolu la leen neex bon nag war nañoo def liggéey boo xam ne daf ñuy abal daf ñuy amal xaalis ba daa daayiman abadan garantir suñ doom yi liggéey. garanti suñ doom yi dootuñ génn dem ci géej gi loolu yëpp mën nañ koo am buñ ko bëggee mus naa wax benn proposition bu yàgg ne joxeel 1000 francs pour sauver sa doom sénégalais bu nekk bu joxee 1000 francs pour doomam yooyu di dem ci géej gi ñu sauver ko 1000 francs yooyu lu bëri lay doon ñu teg ko ci place boo xam ne ñooñu dinañ xam nuñ koy liggéeyee pour suñu xale yi liggéey duñ demati ci géej gi suñu xale yi liggéey mën a am teraanga ci seen biir réew mën a taxaw mën a dëgër loolu yëpp lu mën a am la waaye li ko mën a amal ci ñun ñii ñoo ko mën a amal yal nañu yàlla dimbale ñu mën koo amal ñu mën a xam exactement naka la ñuy naka la ñuy àndee ñu bees ñii di tabax parce que ñu bees ñii ñëw dëgg dëgg nit ñu bëgg a tabax lañ nit ñu bëgg a dolli lañ nit ñu bëgg a yëkkati lañ donc bon nag gannaaw noonu lañ mel lu ñu fi nekk di xuloog ñoom ak xeex ak ñoom dañoo war a ànd ak ñoom dañ leen a war a dimbale dañ leen a war a jàppale ba ñu ñoom itamit ñu wone seen capacité ne mën nañoo xëccoo mën nañoo indi mën nañoo am mën nañoo amal mën nañoo dimbale seen peuple ñu am loolu laay loolu laay yaakaar loolu laa bëgg ne yàlla mun nañu cee dimbale su fekkee am nañ ay ay dogu te war nañoo am ay dogu ndax ay borom xam-xam rek ñooy jiite nit ñi bu leen borom xam-xam yi jiitee rek après lu lu nekk dafay yomb te am nañ borom borom xam-xam boo soxla rek su nekk nii am na ci biir taalibe bàyyi bon nag suñu borom xam-xam yooyu nañ leen jéem a jëriñoo ci tabax tabax tabax suñu bopp tabax suñu alal tabax suñu moomeel moom suñu yëpp ah ba nga xam ne borom xaalis bu ñëw jënd ñu def loolu lu ko neex yal na yàlla fay leen. yal na yàlla nangu suñu gàmmu ñun ñëpp yal na yàlla barkeel suñuy gàmmu ñun ñëpp liñ jóge fu nekk ñëw Médina ñëw fii Médina ñëpp ñëw li leen indi mi ngi ci seen xol mooy dañoo bëgg dañoo dañoo war ne ñun lii lañ ñun yonent lañ farat yonent lañ bëgg yonent lañ àndat te dara mënuñoo génn ci loolu bu ñu yonentu ooyee dinañ ko uy bu ñu ooyee ci yonent dinañ uy ji loolu yëpp ngir óolu goo óolute googu nga am ba mu jaral la lu nekk nga ñëw pour fekkee fu ñuy màggale yonent óolute googu gën koo yaatal ne mën naa ko gën a yaatal ba mu àgg fu nekk ci àddina ba mu àgg ci tabax nit àgg ci yëkkati nit loolu lépp lu ñu mën a am la ñu ngi ñaan yàlla bu baax yàlla na yàlla ubbi suñuy xol yàlla yàlla may ñu départ bu dëgër boo xam ne dañuy tabax suñu bopp ne mën nañoo bokk ñun ñëpp ci àddina bi mën nañoo taxaw ndax adina bi alal rek moko amé te boko amul borom alal yi ñëw jënd la yobul la yalla ñu yàlla mussel ci loolu gamu gango ñëw na alhamdulilah dama waxoon ne du ñëw ci gamu gi damay toog rek déglu ci radio bi comme ni ko ñëpp di déglo déglu na sëñ Macky gamu gi passé dëgg dëgg ku neex gamu nako nim ko wara gamu défé nako nim ko wara défé ko rafetna baxna xam xamna motax gannaaw samay rakk mën na mën nañ eh damay kuló mu rek tëdd jeex na salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñes gumba dañoo bëgg balaa ngaa dem dafa am benn jaayise boo xam ne waa ñi doon liggéey tànt bi ñoo ko joxoon Cheikh Mouhamadul Makki ñu bëggoon nga joxal ñu ko balaa ngaa dem taalibe yi yóbbante nañ ma nag ci yow ñu ne ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci chance bu ngi leen may ñu tabax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 kon ñu zikkar Ibrahima ñu yewi sëriñ bi mu dellu ca kër ga su ko defee ñu continuer programme bi di ko wax rek ne ko waa ansaaru diin bi nga xam ne dénkoon na leen organisation gàmmu gi bëggoon nañoo jotal ay kàddu waaye incha allah comme Cheikh ki mu ngi fi danañ ko jotal incha allah bàyyi leen ko yoon mu dem. bàyyi leen yoon bi hayda la la la hayda la لا إله إلا الله